oyof ci ñoom bu ñu si aussi a liggéey réew mi Sénégalais yi gën a gis bopp ci li nga xamante ni moom mooy ci réew mi ak nu muy doxee donc mu ngi noonu ñu xool ba xam daañu am eh, yeneen ay réaction wu Sénégalais ci li nga xamante ni moom mooy ci eh, bu mu jokkoo bi yaakaar naa ni booba léegi Sénégalais yëpp ñu ngi bëgg daan xam bu baax baax a baax la moon la lañ leen naan élection yi nu mu mujjee ak eh, démb gis ngeen tannage yi amoon démb mu xawoon serré entre ki nga xamante Bassirou Diomaye Faye ak nga xamante ne moom mooy Amadou Ba mais tey mbir mi mi ngi mi ngi bëgg a leer ah, ñu jël ak beneen ah, ab Diallo bi nga xamante ne yàgg naa xam ngeen ko bu baax a baax a baax salaamaaleykum monsieur Diallo ñu ngi lay ziar bu baax maa ngi jégul de maa ngi lay woo ni yaa ngi en live euh, VIP people waaw di leen doon nuyu la ziar rek di leen ndokkale ci weeru koor bi. jërëjëf waaye dana woon bëgg laaj sa impression ci ginnaaw élection yi nga xamante ni am na démb ak euh, actuellement euh, résultat yi génnagum mu ngi joxe tendance bi mi ngi jëm ci Bassirou Diomaye fay muy la nouveau président du euh, du Sénégal. Euh, ak léegi léegi nga xamante ne moom mooy kàddu yu Amadou Ba yëkkati léegi léegi léegi foofu ca siège u APR euh, monsieur monsieur Diallo ba woon tëgg tey li xew démb ak tey en tant que analyste analyste kii politique noo koy jàngatee ci démocratie bi nga xamante ni chaque fois Sénégal day wane dëgg boppam ne dëkk bu am démocratie la. waaw oh non euh, li ñu si jàngat moom comme résultat yi beeg pareeguñu ci gëstu bi ñuy gëstu. Mm-hmm. ci seen xol. Mhm. pareeguñu ci parce que après bu ñu demee ba nga xam ne résultat yi génn na officiellement. Mhm. nga am tendance zone par zone. Mhm. Mm. Mhm. depuis l'histoire mhm. donc loolu aussi tamit ngay jàngat mhm. mooy ni ñu falee Bassirou Diomaye Faye mosuñu ñu ko falee président depuis l'histoire dëgg la sûr mais ce peuple et ces citoyens là est-ce que nous avons le pouvoir aussi hmm. donc le Sénégal nous avons phase pour xam ni hmm. c'est-à-dire le Sénégal dañ hmm. parce que si vous ni sen mer na leen ni sax ñu directement président de la République ko au premier tour waaye léegi li ñu falee président de la république nag bu mu war a toog wala installé wu fan lañ jëm. Mhm. loolu ça interpelle tout le monde. Mhm. mooy pour man yàlla ni mu indee Bassirou Diomaye Faye daf ñu bëgg a wan ni ni jot na yéen Sénégal ngeen toog ngeen liggéey. Mhm. parce que ñi doon wax liggéey la ñu bëgg ñi doon wax dañu xiif dañu mar dañu sonn ni ñu yoree nguur gi ñooñu tey ñoom ñoo xeex ba gañe seen combat. combat boobu nag. ko jox ndax république lañ ko jox. Mhm. dëgg la. Hmm. mais bu tiit di am. Hmm. xam nga ñu bari maa ngi leen gis ñu ngi daw di sànni naan kii moo doon wax lii kii mais bu tiit di war am. Hmm. mooy ñi ñu fal ñoo war a tiit. les les les nouveaux nouveaux waaw non xam nga ki ñu fal. waaw mu sax les nouveaux élus. oui les nouveaux élus parce que benn nit la ñu fal. oui muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mooy le président de la république. bien sûr. moom nag cinquante ans moom lañu ñu fal ci ni ma la waxee ni ni niñ ko fale fale wuñ ko Senghor. dëgg la. fale wuñ ko Abdoulaye Wade. Uh-huh. fale wuñ ko Abdou Diouf. Hmm. fale wuñ ko Macky Sall. Hmm. mooy le président le plus légitimement élu boo xam ni Sénégal dafa traversé ay crise ba ñu defee ne Sénégal dana yàqu. Hmm. mu hérité ko au premier tour. donc loolu laa wax ni ni ki ñu fal. ki ñu fal muy Bassirou Diomaye Diakhar Faye. moo jëra moom mooy tiit hmm. ndax liñ ñu ko yen hmm. yenuñu ko état mais ay soxla lañ ko yen hmm. ndax ñun ku mel ni man man je défendais la république je défendais les institutions de la république et j'ai eu raison sur tout le monde bien sûr mooy fan lañu mujjee xeex bi kan moo gagné xeex bi la république ndax Ousmane Sonko gene fa mu nekk. Hmm. dialogue ak waxtaan politique moo ko génnee fa mu nekk moo génnee Bassirou Diomaye fa mu nekk. Hmm. kon donc rue bi fi coow li ak fa mu mujjee yëpp fan lañu mujjee ci urne yi. dëgg la man loolu laa gëmoon. Hmm. mooy urne yi laa gëmoon nit ni mooy fal nit urne nag nit ñi ñooy fale. rue nag état moo koy protégé. ndax démb li ma njëkk a seetlu mooy bi résultat yi tàmbalee génn rek la gendarmerie nationale bi ñu doon saaga di attaqué moom njëkk kër Bassirou Diomaye. waaw loolu dañ ci war a jàngat mooy la ma doon wax hmm. tey installé nañu Bassirou Diomaye fay le président sortant le candidat sortant ñëpp taxaw félicité ko. dëgg la. bi résultat yi tendance yi démarré donc ñi doon wax DGE administration élection euh, ñii dañuy sàcc ministère de l' intérieur chiffres yi nangam nangam ñi doon wax loolu yëpp di yàq xel yi fu ñu fu ñu mujj. Hmm. même DGE bi même ministère de l'intérieur bi moom moo installé organiser élection yi. dëgg la. yi leen defoon ay maire yi leen defoon ay député yi leen def tey président de la république. Mhm. kon ñun ñu doon défendre institution yi pour wax ni ni institution yi république dañ koy sàmm. parce que institution yooyu tey république boobu tey mu ngi ci seen loxo gendarmerie tey mu ngi ci seen loxo. Mhm. police police nationale mu ngi ci seen loxo. Mhm. l'autorité tey mu ngi ci seen loxo. tey nag ñoom ñooy réew bi tey ci seen loxo la nekk hmm. donc képp koo xam ne ni république nga doon défendre am nga ndam dëgg la képp koo xam ne ni institution de la république nga doon défendre am nga ndam hmm. képp koo xam ne ni institution religieux yi nga doon défendre comme man am nga ndam hmm. parce que ñett yooyu ñoo ñoo fi continuer di nekk bien sûr ku yegg si nag di nga jàkkaarloo ëmb bi la xale yi yenn ëmb boobu nag ëmb boobu nag mooy soxla yi hmm. mooy mer yi hmm. mooy naqar bi ci poos yi hmm. naqar bi ci biir yi mooy ñi nga xam ne aussi tamit dañu jëm demoon ci nguur yi uti ci ñu génnee leen fa ñu mer waaw ëmb yooyu nag la Bassirou Diomaye yenu tey ñu installé ko war ko installé officiellement léegi nag ndax dinañu séparé ñaari mooy république ak soxla yi ah léegi nag loolu lay ñaanal nag Bassirou Diomaye Faye. dëgg la. personnellement képp koo xam ni sénégalais nga képp koo xam ni acteur nga képp koo xam ne observateur nga ñu ñaanal ko parce que ti bu tiit di am bu tiit di am. waaw bu jaaxle waree am. waaw ñun tiitaange boobu ñu ngi ko ñu ko jëmale ci moom. Hmm. Hmm. li koy li koy xaar. waaw ci li koy xaar ak ci li ko fa yóbbu. Hmm. programme yóbbuwu ko fa projet yóbbu ko fa xale yi dañoo wane seen mer dañoo wane ni d'accord tuñu def seen révolution mhm. léegi nag loolu xale yi wax ni nii moom lañ d'accordu la ñi fi nekkoon solution boobu ñoom ñu wax ndax solution léegi léegi la ndax solution suba la ndax solution gannaaw suba la ndax dina am ñu koy xaar mhm. Mhm. te parce ay ndaw ñoo ko fal dëgg la Mhm. te ay ndaw dafa yàq te man dama gëm ni réew bi ñaar yi rek moo koy réglé. muy lan mooy autorité. Hmm. ak discipline ak ordre. Mhm. ñett yi la ñu feebar. Mhm. mooy problème mu réew mi. Hmm. bien sûr ndax sénégalais <coughs> buggul bu ko nekk teg ci ordre buggul bu ko imposer autorité mhm. te lan anarchie bari na ci mbedd dëkk bi mhm. beneen bi si topp na mooy bonne gouvernance ak transparence mhm. waaye mooy suñu faloo dinañu jaaree lépp ci yoon ci mal gouvernance transparent wu ñu doxalu ñu liñ doon doxalee jubul léegi nag loolu mooy soxla soxla bi. Mhm. dëgg la. waaw mais ak lu munti am. Mhm. ñoom acteurs yëpp. Mhm. maa ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu may temps. accompagner ko Bassirou Diomaye. parce que légitimement il est le président le mieux élu. dëgg la. face à cette situation. Sénégal. am benen xex nak bo xamni ni lolu benen jàngat la hmm moy ñaari puissance ñoo doon xex hmm Qatar ak France Qatar gagné la élection yi hmm léegi nan la France di mujjee ak Qatar hmm. waaw kon dina la lolu lolu moy benen débat nak bo xamni ne ni ñi hmm. koy déglu duñ ko gaaw décortiquer hmm France ak Qatar ñoo ki ñoo doon xeex France ak Qatar ñoo doon xex léegi actuellement Qatar moo gagné moo gagné France Qatar gagné na France. ok beneen muy muy beneen débat boo xamante ni. léegi <laughs> alliance bi nga xam ni moo moom moom la Qatar amoon au Sénégal. waaw moo gagné élection yi. Hmm. muy alliance Macky Sall Ousmane Sonko. et hmm. Karim Wade. Hmm. ñooñu ñoo gagné. ñoo gagné alliance ñoo gagné candidat alliance France. dootuñu nangooti Russie ñi dootuñu nangooti ay puissance hmm. xale yi loolu la ñu wax waaw waaye ñi ñu fal hmm. li leen jox doole ba ñu fal hmm. ah bon fële la Ousmane eh, Sonko ah, ah, la doon jàppale. ah bu lay wax ni loolu moom. Macky moo samp Amadou Ba wala. non Macky Sall jàppalewul Ousmane Amadou Ba. ci ci ci ci naka ci ban ci ban fànn nga waxee loolu. musul nekk candidat am. Amadou Ba n'a jamais été le candidat de de Macky expliquer Sénégalais yi pour ñu xam exactement. waaw loolu nag dafay teel heure bi li ma mën a wax rek dënk ko. waaw. Qatar avait mis une alliance Macky Ousmane Sonko et Amadou et, gagné l'élection hmm. ensemble. mais mais Macky Sall. Hmm. Hmm. Macky Sall campagne contre Amadou depuis que nous avons dialogué Ousmane Sonko. Oui. sur notre question. parce que Ousmane Sonko Macky Sall ak ak ak ak ak Karim ñoo waxtaan. Mhm. pour mën a trouver des consensus. Mhm. pour mën a dialoguer pour mën a waxtaan seen après Sénégal après après Macky Sall. Mhm. waaye yàlla nag Bassirou Diomaye Faye la dogal mooy président de la République. dëgg la. Hmm. dafay nekk le président du Sénégal et des Sénégalais de la République du Sénégal et des Sénégalais. la grande question hmm. est-ce que le candidat de la France a d'autres puissances ndax nan opposé face à au au Qatar dans le Sénégal c'est des interrogations. Hmm. mais léegi nag. loolu. loolu nag bu heure bi Hmm. di nga di nga di nga di ngeen gis. dëgg la. Hmm. parce que mais kon ah, abu kon Amadou Ba am mag saala kon lu tax nga yaakaar ne Macky amul confiance totale ci Amadou Ba lan moo tax nga yaakaar loolu. Idrissa Seck deful effet ci ci ci alliance bobu donc Macky Sall s'est faussé sur trois calculs bi mu démé nak ba nga xamné ni war na def Amadou Ba war nañu tan premier ministre Amadou Ba mom la wax ni ya fi ses moko fi indi bi mu ñëwé nak ba nek candidat euh Macky Sall li mu bëggoon ci ci ci ci pour Amadou doon candidat bi ñu yexé ba ci bir accord bi mu defo nak Karim Wade moo sonal. Hmm. Hmm. parce que deux mille deux mille dix neuf deux mille kii Karim dafa war a ñëw loolu moo doon seen protocole. Mm-hmm. li Idriss mm-hmm. Seck doon wax deal international. Mm-hmm. nga xam ni Qatar moo ko ko téyeloon téyeloon Karim Wade. en deux mille vingt quatre Karim dafa war a ñëw. mais Amadou Ba aussi tamit en deux mille vingt quatre Karim Wade bu yegsee est-ce que tamit bu Karim yegsee Macky Sall nan lay def Karim ak Amadou Ba. loolu loolu tamit question la. waaw parce que Benno Bokk Yaakaar. waaw appareil bi. waaw ak ñi nga xam ni ñoo fi tegoon Macky Sall mooy France parce que bu leen fàtte ni en deux mille deux mille douze Macky France ko fi tegoon boobu France moo teg contre Abdoulaye Wade. Mhm. boobu France moo jotee Abdoulaye Wade. Mhm. en deux mille douze ñëw accompagner M23 américains yi aussi jàpp ci Macky Sall bi mu yegsee France la njëkk a dem seeti. ñëwaat accord de défense yi dindiwaat li defoon yëpp ak français ñëw toog ci hmm. diggante boobu nag France defar na fi candidat bi Macky Sall demee ba àndatul ak France commencé wax ak Qatar yi commencé wax ak ñeneen ak ñeneen commencé wax ak Amadou Ba kii ñëw na euh, France créé nañu seen candidat. Hmm. léegi nag bi ñu créé seen candidat nag diggante boobu nag Macky euh,

première doonam. Mhm. deuxième doonam lan la woon. mais bi mu demee parce que xamoon na ni Ousmane bi bi mu demee nag ba nga xam ne ni Karim Wade bi munul bokk Amadou Ba te am na ñu ko jiiñ am na nangam nangam am na ñu def ñu pexe yi nga xam ni moo tax Karim Wade nationalité bi yëpp am na mais bi am bi ka doon boobu amoon na ci la ci la ma yi nag déclenché la donne de Ousmane Sonko. am amnistie bi ñëw. libération ah, bi topp ci bi ñëw libération bi Cap Manuel ñëw. Hmm. bi ñëw ñoom comme dafa bëggoon Karim ñëw. Hmm. Hmm. Euh, mais on a ñu gis démb abu Karim Wade def benn tweet di féliciter ki nga xamante ni moom mooy ba Bassirou Diomaye Faye loolu tamit euh, ci ci xam-xamu politique ab loolu loo ci loo ciy indi comme analyse waaw seen premier obstacle foofu la nekk. Hmm. mooy PDS. waaw loolu tax ma ne la ki ñu ñaar ki jar a ñaanal ak ki jar a jàppale mooy ba Diomaye Faye. ok. Hmm. Hmm. waaw Bassirou Kara hmm. ak Macky Sall mi nga xam ne am na njabootam ku mu dénk Ousmane Sonko mooy ñi nga xam ne ñoom participé wuñu ci élection yi hmm. ñi nga xam ne seen mission moo doon bu Amadou Ba toog hmm. waaw bokkoon ci ñi nga xam ne des hommes de confiance et des avocats. yi hmm. gënoon jege Bassirou Diomaye Faye nee na ma Bassirou Diomaye Faye moo gën a jub saxaar raayu saxaar. maître Moussa Sarr di avocat wu. maître Moussa mi nga hmm. xam ne lii waral lépp presque moom la tey ku ñu waree féliciter maître Moussa sar lañu ñu war a féliciter. Hmm. parce que boo xoolee l'affaire bi nekk ña Cap Manuel. avocat wu Moussa Sarr moo yoroon presque ña nekkoon Cap Manuel ba ci Bassirou Diomaye Fay moo doon avocat am direct. oui moo doon homme de confiance moo doon conseil juridique am. Mmh. Mmh. donc boo xoolee ñaari question yi ñaari groupe d' avocats yi ba ba Bamba Cissé moo nekkoon ci groupe Ousmane Sonko bi ak maître Ciré Clédor Ly mmh. mais maître Bassi maître Moussa Sarr. presque buñ ñu naan révolution deux point révolution bi xale yi mujjee yëpp ki ci joué un grand rôle. dox ci wax ci. réussir ces missions de médiation yi jàppale accompagner Bassirou Diomaye Faye c'est maître Moussa Sarr tey ndamu ndamu ndamu Bassirou Diomaye Faye ndamu maître Moussa Sarr la mm-hmm. léegi maître Moussa Sarr man moo ma ne mm-hmm. Abou Diallo mm-hmm. Bassirou Diomaye Diakhar Faye gisuma ku ko gën a jub man xawma Bassirou Diomaye Faye ñaari yoon lañu gisee benn bi ci programme beneen bi man maa seet si woon Ousmane Sonko ñun ñu bokk daje waxtaan ci table toog ñetteel bi man ba Bassirou Diomaye fay bañ ko tëjee kaso ci laa ko miin ci laa am ñeewante ci moom waaye nag xaw ma ko hmm. Mm-hmm. هم you more a Amadou Ba est-ce que député yooyu yëpp ñoom Abdou Mbow yooyu gisoo leen ci campagne bi xam nga am na ñoo xam ne déggoo leen ci campagne bi. est-ce que quatre-vingts députés yooyu nga xam ne Macky Sall moo ko moom contrôlé ko Amadou Ba amu ci dara est-ce que quatre-vingts députés yooyu tamit bokkul ci accord yi parce que Bassirou Diomaye Faye première fois muy doog a yegg si dina gouverner pendant six mois ak la ak le régime de Macky Sall. peut-être que mën na mu bokk ci accord yi parce que mënul yegg si rek dindi lépp. kon bii di kon ay accord la quoi ay accord la ci biir. parce que loolu mooy politique dama la wax ne léegi loolu mooy politique parce que tey ñi ñi jàpp ci benn mbedd mi li mu jàpp moom bu falee président président bi ñëwee dafay déroulé <laughs> lan moo indi waxtaan bu génnee bu gaay te waxtaan ba génn dugg ba def loi amnistie ba ñu demee assemblée nationale Macky Sall porté ko ba pare ne sama loi la bu dugg ñëpp voté. <laughs> Hmm. génnee di waxtaan dégg nga. Hmm. waaw dina la dinañ la waat ci kanam da ngaa tijji ay brèche yu am solo donc actuellement dinañ la waat ci kanam damay damay damay daal euh, sama directeur général muy Tange ñu doog a dugg ci plateau bi xam naa ne yow dina la waat ci kanam incha allah parce que da ngaa indi ay brèche yoo xamante ne c'est très important. <laughs> waaw mais la il fallait que ñu ñu xam seen ñu am seen ay xalaat ci euh, fii mu toll ak le nouveau président bi nga xamante ni actuellement sénégalais yi ñu choisir donc muy Bassirou Diomaye Faye donc nga indi ay information yoo xamante ne xëy na Sénégal yi xamuñu ko woon ci mbir mi nu mu demee gum nii en tout cas mais ci kam tu daan la daan la jaar ci ligne bi nga duggaat am encore <laughs> merci beaucoup monsieur Abdou monsieur Abdou Diallo nekk koo xamante ni je crois que dañuy taataan bu baax xalaatam mbokk yi wax naa leen ko léegi seen ba léegi seen ay eh, jotaay fii ci eh,